bu yàggul dara gis naa ko ñëwoon na sa kër daal di lay seet si ah. mhm. ñu gis mu nekk candidat ñu tànn nga nekkoon candidat actuellement ndax da ngay continuer nekk def sa candidature wala da ngay dellu ginnaaw dem ànd waaw xam nga tey jii àddina bi dafa am nit loo xam ne yaa ko moom ci sa bopp. Mhm. am loo xam ni nit ñi ñoo ko moom ci yow. Mhm. man tey yàlla dafa dogal nii bi ma naan candidat laa. jàpp naa ni boobu moom Amadou Ba musul taxaw ni candidat laa. yàlla dogal mu nekk nit koo xam ne tamit dëgg-dëgg neex yàlla. man ak moom dañu am ay relation yu particulier sama xarit la avant politique day ñëw ci man man damay dem ci moom te li koy confirmer mooy keroog bi suma yaay gaañoo délégation la def ñëw devant ma famille tout le monde ñëw toog boobu kenn xalaatul ni dinañ ko tànn un jour pour mu jiite benn dara pour jiite Sénégal yàlla dogal ma nekk candidat moom ak sama grand daf ma doon jotante nañ téléphone mu encouragé ma parce que rakam laa mais boobu nekkul candidat tay yalla dogal ni mom ñu tan ko pour mu nek candidat bi nga xamni ni le président dënk benno bokk yakar pour mu porter combat bi pour 2024 mu meuna représenter le président Macky Sall yalla dogal président Macky Sall ma and ak mom ba mu ni bayina man candidat la tay Macky Sall xey suba tel tamu ko xamni sama xaritu ben bakken la muy Amadou Ba ñu sekk teranga man ak mom sekk jamm mu nek sama mak wonama waxtan ma nañu woowaat na ma waxtaanaat nañu le président ñas woo na ma may profité nag ci occasion bi di wax ni Sénégal il faut ñu xam kan mooy Moustapha Niass gis nga tey président Macky Sall li ko may succès yi mu am yépp mooy dafa yàgg déglu ay mag ñu xam état ñu am expérience ñu xam dëkk bi te kooku tey jii mënuñu am ku gën a màgg le président Moustapha Niass tey mun nañ ni li Nelson Mandela doon def ci Afrique tey benn nit lañ dese ci Afrique mu doon sénégalais di Moustapha Niass moom moo koy def pour le Sénégal di ko defal ñëpp gis nga émir yi ngay gis nii émir arabe yi ngay dégg yëpp dañ fiy ñëw discrètement dem seeti ko am ay problème seeni dëkk mu taxaw toog fii régler leen ko te Massamba du ko yëg mu dem du ko yëg lii xew ci Afrique yëpp dañuy gis ni moom fi ñi ko xam xam nañ ni am na lu bëri loo xam mu ngi xew ci Afrique moom moo régler kérok tay président bi désigné candidat bi nga xamni moy candidat ben bokk yakar mom la ko wax olof da doon wax ni am kilifa moy li am solo soko amé am nga solo soko amul amosolo, solo soo amul way da ngay président Macky parce que am na ko am expérience kilifa ko toll Moustapha Niass ci di ko conseiller di ko jàppale ba mu mën yegg si fii tey jii amul benn politicien bu mën a ñëw taxaw ni mag Sall dañ ko gañe ci ay urne mu bàyyi réew mi dafa toog ba doyal ni bàyyi naa wut nit samp ko tey jàpp nañ ni nit kooku yàlla mun na ko may ndam man mi Amadou Ba woo na ma waxtaan nañ Moustapha Niass woo na ma waxtaan nañ kilifa yu mag yëpp woo nañ ma waxtaan nañ ak man dem naa toog waxtaan ak sama waa mouvement ñii nga xam ni ñëpp laa seqal liggéey ci wàllu politique mm. man ak ñoom waxtaan nañ mm. à partir d'aujourd'hui damay surseoir sama candidature topp su ma ginnaaw grand frère muy Amadou Ba jàppale ko parce que Amadou toll na ci man foo xam ni mm. tey dëgg dëgg neex yàlla mënuma ko tëb mënuma ko bët man mënuma jàkkaarloog ni moom ni damay xeex ak moom Amadou Ba su ma mag la tey nag dama koy jàppale sans condition man ak sama mouvement déclic à partir d'aujourd'hui soir, nous, ñun nos candidatures, j'appelais le président Amadou sans condition